yow ngay sant ñu naa day tiitaru man de moom lañu dëkk dëkkaloon ci sama nopp yi waaye kii day tiitaru waay may dem rek waaye bi mu ne nee nañu képp maa ngi sant dootul dëkk kenn ku ko def waaye sant Serigne Saliou et c'est des preuves à l'appui et permanent bu ñu wax ñu naa day tiitaru <laughs> jàngi leen tiitaru waaye kenn dama ni kii tiitaru sax day joggi ci dara tiitaru li ñu tuddee tiitar waaye boo joggiwut dara loo tiitaroo bu leen dégg wax jooju de ku ñu ku fi toog ñu naa day tiitaru ngay rang doo dem de a ah, demal rek de xa ah, bul dellu ginnaaw de man exemple la wax junne dégg naa ko ci àddina fii ci Sénégal lu dul becco wasit na dégg naa ko barke Sëriñ Tuuba amul luñ ma yàqul amul luñ ma waxul ah ñëpp nee na ñu may lëbbe waaw puleeg bàbbee ba jur waay man santuma Mbàkke santuma yeneen sant yi du ma tudd ñooña man ci lima ne lay wax man buñ daan lim ñi war a jiitu daawuñ tudd sama sant daawoo lim ko dégg ñu defe ne yàlla fi ñëpp xam lay lay def yëfam déet déet kon mu yomba xam yàlla biram da lay nga xam ndax da koy nëbb da koy làq moo tax courant sans bàyyi doon diw kon man mi sant nangam loola laa attention ñun bokkuñu ci ñi ñu nax aw sant dunu nax sant wi day barke mën na cee ne ah yaay doomi diw ah aw ñu respecté la ndax diw waaye barke ak baatin daa yo daa bokkul barke lu am lu waaye barke ak baatin du benn de sant moom mën naa tàbbal fu ne baatin waaye ba barke waaye tàbbal fu ne baatin moom ku ko wax wax ko loo deex aw sant yóbbu de waaye buñ ne maay doomi diw maay doomi becco kon nangam laa c'est pas vrai déet déet becco du sëriñ saaliwu ci man-man déet déet mënuma ko kon maay doomi becco kon maay nangam déet déet faut pas yéen dañu fee jaar sëriñ saaliwu nu jàngal bu leen kenn nax ëllëg ku ngeen gisul fa beece jaaroon topp sëriñ Saaliwu mu jaar fa ba mel ni mu war a mel bu leen naa may sëriñ bi c'est archi faux ah il faut pas vous laisser tromper hein j'aurais j'aurais j'aurais à j'aurais à l'intérieur de ma tombe je me serais retourné mille et une fois et regretté mon passage à la vie parce J'aurais loupé mon passage si jamais les millions de personnes que vous êtes, si vous n'avez rien compris de l'ésotérisme, du pouvoir divin, de la possibilité du Seigneur de se manifester ailleurs ou là où on espère qu'il se manifeste. Ou alors, par des pouvoirs divers, les hommes sont capables d'envoûter les autres personnes semblables. ku ngeen gis na Serigne Touba fa Serigne Touba jaaroon jaaru fa mënee la jaar fa mu jaaroon waaye fa mu la fa mu la joxoñ boo fa jaarul ndikk naa may Serigne Touba boo ko waxee kenn du la gëm wala boo ko xamul daa lay gëm. may doomi becco te jaaroo fi becco jaar naa may doomi becco foo koy teg may sëriñ mi ndax nangam laa sant cuun laa sant boo lëggee tax may wax yéen damaa bëgg a wax ak lu leer cuun laa sant ëllëg nga ne eh kooku de bokk daal seex becco dara ngay nërëb nërëb yi loo am joxe boo tàllee sa loxo ñuy fóon ak raam lànk ku toppul Béthio ba yéen ñëpp ngeen d'accord ci nii topp na Béthio te bu loolu di dëgg yàlla di leen wan ne topp na Béthio lànk leen xeddaare bu leen ko nangu fol réfuser lu ko mooy kat je n'aurais rien apporté barke Serigne Touba kon day mel ni man dama fee jaar fexe ba nax leen <laughs> tey beccu ëllëg yàlla di leen ko won waaye may beccu attention eh man su man sama baay <laughs> man sama baay ab jiwel la woon da daal wër di woyaane mooy sama baay mënuma koo ñàkk respecté waaye bu fekkoon te ni sama baay la mu doonoon laa war a doon ko dab géwél laa damay wër di woyaan ak a ñaanam waaye saa lii la woon kon faaw ma doon lii ku leen ko wax lam la mu doonoon mu ngeen di ci moom nan ah, lii la woon kon lii lay doon hmm. xam-xam joxewul loolu Ah, je vous préviens. Il y a beaucoup. Et quand je cite chez moi, c'est peut-être le moins évident qu'ailleurs, où l'on pense que un oh nom peut représenter le divin. Serigne Touba waxul lool de. Déedéet sama tur wi sama sant wi bu mu leen nax bu mu nax kenn bu ngeen gis muy ñëw wuyoo saaw sant te gisu aw doxeenam yàlla wonu leen la mu bu leen naa may seenu sëriñ lànk leen kaddaare way ah na góorgóorlu ni bee ca def may sa baay d'accord waaw sama sant wi man nga ko yor waaye bu sant wi nax kenn yéen daal jàngal naa leen nii bu leen aw sant réeral waaye dama ne bu aw sant doon joxe waaye kon du doon seenum sëriñ waaye waaye man musuma bokk ci déew bi nag sama sant bi fu ngeen ko musa liir ci liggéey bi musu ngeen ko ci dégg kerte sëriñ Tuubaa joxe cër yi jaarlewu ko ci ay sàpp barket nag man ngaa juddoo ci barab barke topp la ca barke waaye barke ak baatin bokkul de ah je vous préviens celui qui qui se sera cassé la tête demain tant pour lui moi je ne me suis pas tué j'ai suffisamment déclaré par là où je suis passé par Serigne Saliou c'est pas de moi dit de par mon musuma bokk man saaw tur mus saaw sant mus sa bokk déedéet bu ma bokkee seet leen lu tax ma bokk ma bokkee tey ba réew mii di Sénégal ci àddina léegi àddina riir topp ma waaye ndax sant wee ah sant wi ba fii mu ne sax boo ko tuddee ñi fàttali ko sant wala ñu defe ni lépp ci sant lay dajee mën nañu maa gëm barke Serigne Touba te yàlla dina sew loolu ay attention ma je ne trompe il faut pas que mon nom trompe les sama doom na jaar fi ma jaar na toppe Serigne Touba ni ma ko toppe na liggéey ni ma liggéeyee te est que liggéey ni ma liggéey mën naa am man naa maye li ma doon ah, parce que je ne veux pas sa trompe waaye dama ne maa ngi noyyi li ma Serigne Saliou defal ma di ko wax ay daal maa ni mooy man mii maay moom jàpp ci ayda bi muy dëgg-dëgg jàpp ci man Serigne Saliou ba ko waxoon loolee mën nga xam dama ko bëgg a waxaat ba àddina yëpp dégg yaay man maa yow ayda Diallo potentialité la boo xam ni bu ma naa war moom la ju war a